bon je ne voyais pas vraiment ma dem fa parce que tamit. dama dama ne ko fay bor parce que bi may campagne. Ah, dëgg parce que saa ah. euh. ñu wax ci ah. Euh. Hmm. saa ñu wax ci. saa ñu wax doon ah. wax. yaa ngi bëgg <laughs> euh, protège l'autre en fait. non mais de l'autre côté ñoom am na ñoo xam ne dañ ne ma da ngi may wax fii ne ma Macky Sall ngay a rafetal rek pas protéger. waaw rafetal rek waaw soo nee rafetal rek d'accord naa. non bu dee politique connivence lañ koy. man sama sañoon dama ko gagné sama ko mënoon a gagné ko gagné loolu en politique kon su ma ko du ah, rafetal de kon yéen ñaar da ngeen di. dama ne su ma ko mënoon a gagné Saint-Louis. kii Ziguinchor du ma ko fa gagné moom tamit ma yaakaar ne ba ma mënoon a gagné Kaolack bu doon moom mooy décider du ma gagné. Ah, mais yooyu amul problème. mais ci Basirou euh, sortie médiatique. voilà euh, Basirou ko trop wax dëgg yàlla euh, man Ousmane laa xam bu baax. waaw Basirou sortie médiatique bi bon c'est en accord wax na wax bu am solo ah. wax bi mu wax je pense que c'est résume en. joxe yaakaar. rassuré na la. bien sûr. wax bi rassuré na ma. bu baax la vie bi. Ah? matériellement lan lañ mën a def ba wàññi njëgu dund bi muy ceeb diwlin suukar nga xam ne. ah mais moom def na ko ci programme am. non yow opérateur économique non man sama sama xalaat. Uh-huh. bon sama xalaat fi ne nii wàññi dund bi moom ñaar rek lañ mën a nekk. dana ñu wàññi train de vie d'état man li ma defoon li ma li ma naroon li ma naroon a def ma nekkoon président la yow mooy wàññi train de vie d'état subventionné loolu rek laa man mhm. ci année bii année bii mhm. pour génn ci mooy def lu immédiat mais deuxième mooy jël ci loolu tamit fexe ba nawet bi lu mu mën a coûter buñ doon arrêté projet yépp jël armée beeg ooye foor ak xale yeeg yépp tuur leen ci àll bi ñu bay bi waaye armée oui armée peut encadrer oui bien sûr armée a du matériel xanaa xamoon l'armée moo gën a placé la te l'armée ba léegi l'armée dañu am matériel bu bari boo xam ne ah a ñi nelaw ci camp yi mën a génn bëri na ci ñi nekk di nelaw ci gis nga boo demee boo demee ay mhm. armée du armee rek sécurité xool ko soo gisee fii partout Maroc yëpp armée mooy génn bay loo leen quand mais attends ba loolu rek lañ bëgg ñoom loolu bay ku ko bañ yow mii sax ku la jox bay nga war a bay de xanaa ku koy bay non gis nga baykat bay mooy li gën a barkeel ci li yàlla def. cest à dama lay yox may ma maagal dama ne la tey liñ mënoon a def mooy booster xale yi pour que ñu ne dañuy dem def. dañuy def exploser production bi. Mhm. comme li fi Ablaye Wade defoon Guana. Mhm. xëy xëy rek dóor lépp. gerte gi ëpp nga ne woon dañuy produire temps ñu def ko dix fois lii def ko dix fois lii def mhm. deux fois arrêté lépp pendant trois mois quatre mois nag bu boobaa nag ki lañ mën a wax ne léegi nag dund gi mooy autosuffisance am ñu ngi koy am man noonu moo doon sama programme et je pense que ñoom tamit li ma gis seen programme bari na yu nuroo daal mooy programme bi mën a yóbbu ah? réew mi kanam mooy programme bi nga mën a yóbbu réew mi kanam ah lant pardon programme bi mooy programme bi mën a yóbbu réew mi kanam waaw mais xam nga tamit ci sama campagne wax naa ko je le répète baax na trop. Mhm. mais exécuter programme. mooy problème bi mooy mooy problème Sénégal berne je pense que euh, ce que je lui conseille qu'il essaie d'entourer des professionnels xam nga tey euh, politiciens yi politiciens yi baax nañ de. oui des professionnels dedans. Mhm. waxuma ne ay kii lañ mais am na ñoo xam ne ni suñ ko bëggee def métier. Mhm. ba paree ñu dem ci rek du sotti li ñu war a def mooy seet professionnel jox leen ñu liggéey loolu rek ko mën a sauver ah mooy comme yow li nga def xam ni politique du métier nga daal dee dellu si li nga waaw ma dellu si waaw mooy dëgg waaw du noonu man loolu laa def waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñi ngi amoon euh, invité euh, donc ki nga xamante ni moo di maire Kaolack moo di euh, Serigne Mboup nekkoon candidat à l'élection présidentielle Serigne Mboup bu ànd liggéey ànd nawle ba tey nga nekk ci même vision boobu noonu yokk ba yëg ko du waaw tool bi daara ji penc bi <laughs> yàlla baax na <laughs> ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo ak mbooloo la waaw maa ngi tàggatoo ak mbool ma di leen sant di leen gërëm Euh, di wax rek ne Sénégal. Uh-huh. ñoo ko bokk. man li may prôné Sénégal wàññi politique. Uh-huh. boo demee États-Unis mais bu élection passée politique jeex na. très ba politique amaat. xam naa nag ça arrange pas les sa uh-huh. ça arrange pas certaines personnes yuy dund ci ñaareel ba tamit ñu mën am patience. imaginez man bi ma yoree Kaolack cinq ans benn at rek lañ commencé. Hmm. benn at rek loo fi def hmm. ana lañ fi def. nangam ma ne leen mel na ni ñu ñuy seetaan actuellement ci plateforme digitale yi bëgguñu ñu nga dem. bëgguñ